ba mu jur isbul tarxiya loolu yëpp suñu jaar jaar te sëñ Abdoulaye Sarr ku baax kook yàlla na ko yàlla yokk wér eh, eh, yokk ay fanam liggéey na si lu bari maa ngi nuy sama mag ji nga xam ni génn na livre boo xam ni eh, ku ko liir daa xam sëñ Touba taxawaayam ndax xam sëñ Touba dafa jafe mm-hmm. waaye taxawaayam rek ci mm-hmm. fànn yu bari te daa daa bëgg sëñ Touba moom loolu la wane loolu la wane loolu la wane sëñ bi nag wax dëgg yàlla dafa wane kan mooy sëñ Touba nan la ko wane fu mu waxe alxuraan bay eh, jël xasaay teg si wetam nga xam ni sëñ Touba léppam alxuraan nga xam ne xasaay yi dafay jël alxuraan fexe ak pédagogie bi sëñ bi am ba nit ñi gën ko man xam gën ko mën jëfe mm-hmm. man nag nee naa ko jàngale moom tey bi dafa dafa dafa am solo te fii Sénégal toll mm-hmm. nee naa leen Sénégal topp toppewuñ ko lu dul ay jikko yu rafet mm-hmm. ak stabilité bu mu am balaa or di am balaa pétrole di am jàmm ji fi nekkoon jàmm nag wax dëgg yàlla li fi sëñ Tuubaa woote kenn wootewu ko fi moom moo woote dëgg-dëgg jàmm mhm. nee leen su jàmm amul woon mhm. su sëñ tubaa wootewul woon jàmm jéggalewul mhm. kenn du mën jéggale ba àgg fi sëñ tubaa ak seetal dund gi mu dund ni mu mettee si exilam bi seetal sëñ tubaa moom pesewul ñeent fukki kilo ak juróom moom mooy yanu bagaasam yooyu nekk foofu nga xam ni li nekk màtt naka fa taw bi di taw si kawam ñu teqale ko ak njabootam tasaare ay këram mm-hmm. waaye bi mu jëkkee teg tànk lu mu jëkk def mooy jéggale ndax xam na ni jéggale boobu mooy jur jàmm ëllëg murid yi man sëñ Touba su jéggalewul ak bëgg gi ma bëgg sëñ Touba tey mën naa doon terroriste dama koy wax dama koy fayul si Touba bi waaye tey Touba bu ma gis dama lay jàppe sama moroomu mindaa foo ndax sëñ Touba jéggal na leen dimbali gi nga xam ni rafetal jukko yi nag loolu tey moo mën jëmale Sénégal kanam rawatina ñu ngi jëm si élection mm-hmm. su nit ñi jiitelee seen bëgg-bëgg te rafetalul seen jukko mm-hmm. du sotti du sotti te Sénégal gii mm. ku fi bëgg am njariñ mm. amal njariñ Sénégal jëkkal jiital jàmm yéene sa morom jàmm te man jéggale waaye sëñ bi jàngale leneen mm. loo xam ni wax naa ko léegi mu dëggal ka nee naa ko dimbalee gi nga xam ni moo nekk ci lislaam dafa am fondement koo tànni ke nekk dimbali ko soo ko dimbalee sa borom gën la dimbali nga mën dimbalee waaw koo tànni ke nekk dimbali ko sa borom gën la dimbali nga man dimbalee wallaahi te nag seetal ku dem tubaa do musuloo dégg ñu ni famine dana am Touba déedéet. foo dugg lekk ba suur. Mm-hmm. foo dugg ñu jàppale la. kon nag wax dëgg yàlla. nanu sant yàlla waaye nag yàlla may na ndam sëñ Touba. masalik bi fierté wu l'islam la wax ma sax fierté sëñ Touba masalik bi fierté l'islam la ak la mu dajoo te fàtte fàttal lim fi daj ñetti guddi yëm yooyu fi ko dugal ak ni ñu ko mm. toroxale mm. mu dem bay waaj wax ni day yëkkati sax woote. woote jihaad soxna jaara fekk ka fa ni ko daa am ndam de. wallaay moo am yaay ju baax waay yàlla noonu yàlla fayal soxna jaara bu sax jërëjëf jërëjëf.